benn coalition euh, jàpp ma tur bi exactement mais euh, Macky Sall l'ancien président de la République bi nga xamante ni jamono ji nekkul fii ci Sénégal euh, ñu bëri di ko tudd ci en tout cas gestion bi fiy jot a def ñenn ñi sax di réclamer mandat d'arrêt international contre moom Macky Sall moom la investir nañ ko ci benn liste. Mm-hmm. ouais je crois que c'est la surprise du chef. voilà même c'est la c'est la c'est la c'est la grosse nouvelle de la journée. Oui. Euh, mu bon nekkul loo xam ne mën nañu wax gulet quand même parce que on a vu en par exemple il a dirigé la liste. en deux bon il a je crois il a renouvelé aussi en 2017. Mm. Mm. donc je crois que élection bi peut 2017 il était il était effectivement daal la la la bokkul. 2017 bokkoon na waaw de bokkoon na 2012 <coughs> donc beneen bi mooy François Hollande ancien président de de la France actuellement ni député la. donc euh, avant lui euh, Valéry Giscard nekkoon na ko bon maintenant concernant la le cas particulier de de de, de Macky Sall euh, loo xam ne lu ñu mën a comprendre la bon euh, boo xawee sob tuuti ci euh, mbirum mbirum analyse parce que dafa mel ne un second tour boo xam ne dañ ñoom ñett ñi je crois même y a un journal qui l'a qui l'a écrit ou titré mm -hmm. ce matin c'est-à-dire que y a y a y comme une sorte de de règlement de compte entre Macky Sall Amadou Ba ak Ousmane Sonko. boo xam ne ci législative bi lañ ko nar a joué. mais voilà coalition mi ngi tudd takku wàllu Sénégal. takku wàllu Sénégal voilà takku parce que takku bi je crois mooy l' ancien bon une partie de l' ancien Benno. wàllu mooy mooy le PDS naturellement. Mm, waaw donc euh, beneen bi l' autre partie de Benno donc elle est avec Amadou ak euh, ñeneen ñi mais je pense que bon peut-être que euh, comme je le disais que c' est un c' est second round de la présidentielle qui qui qui qui est de se jouer. euh, que Macky Sall, bon, tout le monde sait qu'il il, n'est pas tête de liste pour, pour venir euh, si, euh, occuper un poste de député. Mm. Donc, euh, le, personne ne peut l'imaginer. Donc, mais ce qu'il fait, c'est peut-être euh, remobiliser les, les, troupes, montrer aux gens d'Amadouba que mon mon fi nekkoon moom moo fi nekk te moom moo fi nekkaat. donc c'est un gatsa gatsa d'abord entre ñoom les anciens de Benno entre Macky Sall et son ancien premier ministre donc euh, mu nekk aussi benn benn comment dirais-je benn benn gatsa gatsa match retour mhm. entre euh, kii di Macky Sall ak Ousmane Sonko parce que faut pas oublier aussi que c'est Ousmane Sonko qui va diriger la tête de liste de de comment dirais-je de de voilà de Pastef voilà boobu moom c'est boobu moom c'est vraiment clair mhm. amul sax yeneen tour ay tournure ay euh, takku wàllu askan wi takku ñàkk jëriñu ak affaire yooyu donc bi moom c'est Pastef c'est très clair je le disais chronique je moom moom moom mooy bi gën a clair mhm. boo xam ne moom Pastef la mhm. bon euh, maintenant euh, y a y a y a ce euh, kii nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy Ba ak Ousmane Sonko mais li ci xaw a kii rek mooy que Macky Sall ak euh, euh comment dirais Karim Wade. Mm se retrouve comme par enchantement comme si de rien n'était. bon nekkaat ci dans une coalition. Mhm. pour aller à l'assaut de l'Assemblée nationale je crois Karim Wade il est investi à la troisième place. je crois si je ne m'abuse il est euh, moom tamit xam naa ne c'est pas pour siéger mais c'est juste pour mener un combat. Mhm. parce que Karim Georges si ma mémoire est Karim je crois am na benn année boo xam ne il était sur ou ou c'était avec son papa moom il n'a jamais. non non papa, non boobu il était pas éligible. il avait perdu ses droits. mais euh, bon façons on va voir les résultats les résultats vont soit confirmer ce qui s'est passé en 2024 ou bien ou ou ou bien l'infirmer mais euh, en tout cas lu lu lu lu lu lu lu lu intéressant la en termes de en termes de de comment dire d'analyse de commentaires politiques que un ancien président. reviennent euh, reviennent non pas reviennent mais en tout cas drive une liste au, à partir de de son exil que Karim Wade bokk ci ci boobu ñoom ñaar donc ils vont diriger cette cette liste là que de l'autre côté il y a Amadou Ba je crois il a quitté la coalition bi mu bokkoon waaw donc ensuite mu am euh, de l'autre côté Ousmane Sonko. Mm -hmm. donc donc mu nekk non plus un combat à trois mais un combat à quatre. qu'on va boo xam ne euh, qu'on attend avec beaucoup ak avec beaucoup d'impa d'impatience pour voir un va. comment comment les gens vont les départager. Mm-hmm. aywa ba Macky Sall ba muy jóge euh, Sénégal jógewu ci ak euh, voilà demul dem boo xamante ni dem bu neex la euh, ñi ngi fàttaliku élection yi ba mu ko ajee nit ñi si ñàkk seen bakkan manifestation yooyu lépp même pas une année moom mu bëgg dellusiwaat ci au devant de la scène politique jiite liste est-ce que du pari bu risqué quand même. xaw ma pari pari pari bu risqué la xaw ma mais daal nous serons très heureux de la l'accueillir Euh, vraiment war na jël ay bagages am mu ñëwaat battre campagne man bi ma déggee ni mooy tête de ñi nga xamante ni mooy takk wàllu Sénégal. Mhm. naa ni kon Macky Sall fas yéene naa ñibbi fas yéene na ñibbi si Sénégal ñëw jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo fi jeexal nguuram mooy euh, euh, président Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko. et je pense que su Macky Sall jëlee ay bagages ñibbi si waat Sénégal pour mener une campagne. Euh, pour les élections législatives dana doon loo xamante ni dana gën a neexal li nga xamante ni euh, mooy campagne bi li ma comprendre rek mooy euh, alliance bi nga xamante ni am na digganteem ak ñi nga xamante ni ñooy waa PDS surtout Karim Wade ak li ñu doon wax ci intercoalition bi nga xamante ni moom moo waroon dox ci digganteem ak Amadou Ba dama yit tey ci suba ni Amadou Ba moom finalement il a il a dû claquer la porte parce que déggawul ak ñoom ci certains points wala ñeen ñi war a diriger en tout cas liste yi ci yenn département yi nga xamante ni peut-être ay nit la fa bëggoon ay nitam la fa bëggoon a teg on parle aussi d'une intercoalition boo xamante ni euh, Euh, mi ngi jëm ci wàllu euh, Macky Sall moomu ànd ko war koo ànd ak beneen coalition bi muy sàmm sa sàmm sa kàddu. Mhm. Euh, nga xamante ni ñoom xalifa Sall fa nekk ak PUR ñoom Déthié et cetera. donc yooyu yëpp ak Bougane mhm. donc yooyu yëpp je pense que benn cocktail la boo xamante ni après war na mën a neexal li nga xamante ni mooy mooy élection législative yi donc ci de l'autre yaa ngi dégg waa Pastef nii dañu leen di bëgg a boole ñoom ñëpp bu ñu àndee ñoom ñëpp doon benn say après ñu duma leen benn yoon yëf Euh, yi fi jeex xaw ma nag ndax noonu lay demee mais en tout cas euh, rien que le fait de savoir que Macky Sall est tête de liste euh, sur tête de liste d'une coalition pour les législatives peut-être jox na jox na jox na ñeen ñi nga xam ne ni bëgg nañ koo gis mu ñëwaat fii Sénégal ba jàkkaarloog sénégalais yi rendre leen compte parce que keroog <coughs> face à la presse. kii di Ousmane Sonko mi ngi wax ni Macky Sall war na. Euh, rendre compte ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi c'est peut-être l'occasion peut-être bu ñëwee Sénégal tey jii nouvelle autorité yi euh, daal di fexe ba Macky Sall moomu nga xamante ni tegaat tànkam Sénégal bañ fay génnaat euh, ba bu rendre compte jotee euh, mu mën a jàkkaarloog askan bi rendre leen compte ci yooyu nga xamante ni moom lañ ko teg tuuma ci ci ndoddam. <laughs> alors euh, alliance contre nature entre euh, kii di Macky Sall ak euh, Karim bu nekkul candidat à l'élection présidentielle depuis deux mille ban deux mille dix-neuf na ni Macky Sall moo indi woon créé ak yooyu mu ngi mel ni fàtt nañ lépp tey jii bokk di jaaw. Thiago benn taal. waaw xam nga wax wax naa la dem que ne euh, terrain politique moom euh, c'est là où naissent euh, d'anciennes de nouvelles amitiés là aussi on enterre de d'anciennes amitiés également. Mm. c'est-à-dire waxoon naa la ko dem en politique faut jamais dire jamais. maanaam nga toog ba diw mii dootul toog ak diw mii parce degré de d'adversité ou d'animosité tel que toog bokk loolu moom gëmuma ko si politique. parce que les intérêts changent au gré des de des, des circonstances. tey boo gisee Amadou kii euh, Macky Sall toog ak Karim Wade toog ak euh, Khalifa Sall ne dañoo bëgg am benn coalition te ñaar ni ñëpp tous les trois ils ont des ils ils ont ils avaient de vieux conflits avec Macky Sall. Mm-hmm. Mm-hmm. Karim Wade bu ñu ko téye Macky Sall la. Khalifa Sall bu bu ñàkkee mairie Ndakaaru Khalifa Sall la. donc ñooñu kenn mosul xalaat que ne nañu toogaat ba ne dañuy am ambition parce que ce n'est encore une fois moo tax ma ne peut-être ça peut surprendre mais man ça me surprend pas et ça doit pas surprendre parce que pour pour la bonne et simple raison que de alliance boo xam ne dañ ko teg si programme wala dañoo dañ ko teg si idéologie wala dañ ko teg si xawma yaa ma neex wala quelque chose comme ça mm-hmm. non ils ont un seul objectif mooy am un maximum de députés une très bonne chose man de dama si kontaan ma dégg ne Macky Sall mooy jiite noo nekk tête de liste. seen coalition pourquoi pourquoi parce que euh, Anne mu ngi koy rappel léegi à le président Ablaye Wade. Mhm. c' est très rare nga gis un président en tout cas Diouf defu ko Diouf defe na woon sax bëggatul nekk chef de village. Mhm. donc euh, que Abdou Ablaye Wade bu mu ko defee euh, à partir de 2000 c' était pourquoi. Mhm. dafa xamoon ne son parti était en déconfiture. maanaam parti bi dafa naroon tas. Mhm. te moom jàppoon na ne moom turam rek sur une liste ça pouvait convaincre ñëpp ñi nga xam ne képp ñi nga xam ne yaa ngi koy topp depuis 1974 gëm gëm programme am gëm son idéologie soppi te loolu il il il avait réussi parce qu'il avait obtenu plus de vingt députés même en 2017 bi il n'a pas siégé moom dafa ne woon sax moom du bokk. Mhm. ça aussi c'était vraiment évident Saliou Dieng mi nga xam ne moom la Karim Wade propulsé au devant de du PDS actuellement moo siégé à sa place aujourd'hui à l'Assemblée moo doon siégé à l'Assemblée à a à sa place moom moo jëloon euh, kii Abdoulaye Wade hmm. donc si Macky Sall également son parti se trouve dans la tourmente mu dégg ne ki nga xam ne moom la yaak moom la wóolu woon si élection yi moom la sampoon muy Amadou Ba génn na ak une certaine frange de l'APR pour ne pas dire de Benno Bokk Yaakaar tax samp na dem tourner le dos à la paire il il se dit que voilà je vais prendre mes responsabilités si je suis ancien président an mu ngi koy rappelé léegi c'est pas parce qu'on a été président qu'on ne doit plus siéger à l'Assemblée nationale mm-hmm. loolu sax ça doit être un exemple boo xam ne dañ koy copier en Afrique parce que il l'a rappelé tout à l'heure euh, def na ko avant Hollande y a eu Valéry Giscard d'Estaing en France mm-hmm. euh, Euh, Souleymane Ndéné Ndiaye bu ñu ko bu ñuy njëkk a jóge au pouvoir il était député xam nga à l' assemblée nationale. Mm-hmm. mais il avait il avait dit que dafay mu doon toogee assemblée sax daf ko xawoon a gêné ba mu ne day dem Angleterre jàngi anglais. <laughs> waaw waaw loolu la woon. Mm. xam nga bon dañ nekk CEDEAO moo xam ne aussi même bu ñu la nommé ministre yenn yi bu ñu leen nommé ministre rek wala yeneen yeneen poste responsabilité yi ñu bëgg du leen ay enseignants dinañ non lii daal mënatuma fa nag loolu dañ ko war a dindi aussi dans la mentalité des des des sénégalais en particulier des africains en général. Mhm. maanaam nga ne ministre la nga ne ah wax dëgg delluwaat di di jàngale wala delluwaat di nekk à mon poste bi nga xam ne fa laa nekkoon dañ koy def xaw ma je sais pas ban moo si nekk. Mhm. te pourtant on doit pouvoir après avoir exercé euh, des fonctions de ministre de DG de xaw ma lan de premier ministre. retourner euh, fi nga fi nga nekkoon avant. d'exercer mhm. les mêmes fonctions pour le bien de ce peuple-là qui mais euh, ce n'est souvent pas le cas parfois da gis les anciens ministres d'ailleurs la presse s'amuse souvent à à à à faire des articles après chaque euh, kii que sont mm-hmm, mm-hmm. di laajte mais diw mi nekkoon ministre wala diw mi nekkoon premier ministre lan lan la dellu ñu dégg ñi di wax damay dellu ci suma tool yi ñii ne la naan damay dellu ci suma poulailler yi ñii ne leen damay dellu ci classe yi mais bon les autres tu les vois même plus tu les entends plus. Mmh. donc c' est quand même que ñu di dem élection que le président Macky Sall ne damay damay bokk si euh, jongante bi. mais est que dina ñëw dina ñëw Sénégal waaw léegi nag. Mhm. une chose c' est d'être tête de liste. une autre chose maintenant c' est est ce dina ñëw battre campagne. waaw <laughs> ça c' est la question la loi parce que la loi ne l'oblige pas. à venir battre campagne. bu ko neexee mu ne leen bàyyi leen ma fi ba rek. ma mhm. toog fële ca Maroc. Mhm. di def le tour du monde. yàlla def mu gagné mooy tête xam naa lu mu dee dee dina am benn député. mu nekk député. <laughs> si si loolu moom. Oh, lu dee dee dee moom dina am benn député. moom moom au pire des cas au grand pire des cas moom Israël yi. voilà au <laughs> grand donc moom déjà fu mu toog foofu ne jàppal ne rek nañ dina dégg honorable Macky mhm. te bu ko déggee sa peut lui valoir quelque chose parce que euh, il aura son immunité parlementaire. Mhm. te dans ce contexte là bu ñuy wax nii. peut-être reddition des comptes ça peut c'est un enjeu. c'est un enjeu. Mm-hmm. bu ko neexee mën na bàyyi ba ñu samp assemblée bi ba ñu kii ko jour bu ñu nga xam ne moom la ñu installé assemblée bu ñëw toog. Mm-hmm. il y a des députés qui le mm-hmm. mais léegi nag bu ko neexee mu toog bi jël sa place ne je démissionne jox ko peut son son loolu moom yoon yoon may na ko ko. mais rien ne l'oblige à venir battre campagne. mais encore une fois c'est c'est maintenant que comme Ayoba wax Ayoba boo wax boo boo waxee loolu bu ko déggee du ñëw parce que bu déggee bu déggee ne saa ñu ngi la fi xaar dëkk mu ngi lay xaar mais day nekk ah kon bàyyi leen ma toog fii rek def lu gën a yomb mooy ma toog rek <laughs> kii nu mu teel sax les gens ils von ils vont battre campagne pour moi ils vont m'élire et je rey jël. Euh, euh, tirer les marrons du feu comme on comme mhm, mhm. du si bukki bay baa mën nu ne la ñuy wax. <laughs> tirer les marrons du feu de toute façon l'expérience je connais. Mhm, <laughs> donc loolu moom euh, ça c'est c'est c'est quand même euh, bon de le de, le savoir. Et ça a été aussi un enjeu pour lui parce que un enjeu au-delà de aspect yi nga xam ne moom la Ibrahima di wax que ce sera un, un de vieux compte entre lui et Amadou Ba parce que cette fois-ci moom ñoom ñaar au-delà de sax et Ousmane Sonko mais mook Amadou Ba. Mhm. Parce qu'il voudra prouver à Amadou Ba que un bon score, il va prouver à Amadou yow, tu vois que man, si j'étais candidat, si je m'étais entêté à être candidat au Sénégal, certainement que je serais mhm. Et que je vaux politiquement plus que toi. Mhm. Amadou Ba également du du bëgg a toog ba raw ko. parce qu'il voudra prouver également que cette élection de ben, il s'est que tout simplement, il y pour la rupture ou bien pour la continuité avec l'ancien régime. D'accord, d'accord. Euh, beneen tête de liste boo xamante ni aussi soulevé na ay question euh, mi euh, Barthélémy Diaz di tête coalition Sàmm Sa Kàddu ñenn ñi jàpp ni Barthélémy Diaz candidature boobu bu risqué la parce que boo moytuwul dañ ko nar dàq ndax condamnation bi mu jotoon